noo ngi sàkk nga abonné ngir mooy tax saa suñ dugalee sunu vidéo ci YouTube bi nga mën ci jot ci nam gën a gaawee waxtu juróom yi fu nga fekk muy waaj ngir fonk julli moom la def mu dig maat bu noddukat bay nodd muy ikaaya waxtoom du neen rangoona ay midaaya bu daane mu sant yàlla julli te Mustapha rëti ba doora dalli ñaanal ña koy siyaare dal ni ne ay ca ñu joxe fardu leey roy na maam ja bu ne jëm jàkka nit ña dar ko muy saf ku baax ka sayuxu naa safoo ko bu duggusee sappiya dal tolloo sun ilimaan ja mbakke maa ko wóolu te yàlla laa ilaha illa allah muhammadun arsalahul ilaaw sa xel dem ca ja xawsul wara kada dule fa sa xel dem ca ja